seen garabu kéemtaan bi la di àndalaa buri benn kaasi ataaya nga ciy naan yëg sa bopp koo ko séexal mu xam ne yaay góor ak àndalaa buri yaay njiitu kër gi woteel ci numéro bi jënd léegi balaa muy jeex internet Dakar Buzz TV waat nañ leen bu baax a baax seen kaa ñëwaat na tey jii ak beneen ka uh, ngir rek ànd ci ay leeral dégg nañu ci mbuur li nga xam ne xew na fi uh, muy xale bu góor bi ñu toogal ñu tudd fi it wàllum góor jigéen gis nañu ca Parcelles Assainies uh, góor jigéen ñu ñu wax dañ fa doon sabaru ba askan wa génn jàmmaarloo ak ñoom ci jamono ji nga xam ne ànd sàmm jikko yooyu kenn kuréel yi lëkkaloo nañu ngir xeex wàllum góor jigéen ñi ne am na ñi ne amul ci a ñu ci bari nag ñu ngi koy wax ku ci ne ak wàllu wàll ba nga féete tey nag ñu dégg li nga xam ne am na fi Mbour comme ni ma ko waxee woon sànq euh, tungu ne du teew ñu nataal ki mu daal mu ngi nii la ci am gendarmerie la nga koy def waaye ngir ànd ci ay leeral tax nu ñu daal di ñëwaat fii ci moom ngir waxtaan ak moom ñu ngi lay nuyu. oui salaamaaleykum maa ngi leen nuyu di leen fay di leen jox seen wàccuwaay euh, le fait que ngeen déplacé wu ñëw fii envers moi euh, di wax def ngeen acte bu rafet quoi parce que. nit moom bu demee bay xeex wàllum góor jigéen moom alors que amul leen loo koy def lu dul félicité ko pour man euh, loolu mooy affaire yi. naka nga tudd. Euh, Youssou Ba. Euh, je de Vélingara Youssou Ba laa tudd de Vélingara. ñaata temps nga def fii ci Mbour. fii nag parce que man juddoo ma fi nag maa ngi juddoo benn village après je me suis déménagé ici à Mbour. nekk temps nekk fa benn temps bu yàgg yàgg après fi laa jànge après ma déménagé wu nag ñëw fii Saly Vélingara waaw. lan nga fi def naa fi presque un an presque un an rek laa fi def fii Vélingara. lan nga fi liggéey. Euh, man nag sama liggéey euh, surtout en technique mooy électricien plombier piscine jacuzzi clim euh, yu demee noonu ay jacuzzi affaire yooyu noonu. d'accord est-ce que mën nga ñu expliquer un peu li nga xam ne moom moo xew ndax nde ci wàllum transfert d'argent nga tàmbalee mbir yi wala. non non tàmbalee moo ko parce que ay société bu ñu doon def la. ci lañ ci lañ dale di liggéey affaire yooyu noonu euh, ba nga xam ne man tamit instant yi tamit beru na mhm. def sama travaux bopp quoi. d'accord léegi ñi ñi naan ay góor jigéen lañu muy borom ñaari tur yi fan nga xamante ak ñoom. Euh, góor jigéen nag man dama part man mosuma ko gëm quoi mosuma ko gëm parce que mosuma si intervenir mosuma si mosuma ko gëm du woon la loo xam ne sax dama koy gëm parce que daan naa gis ay vidéo gars di ko kii mais mosuma ko gëm quoi euh, li tax ma gëm ko mooy que dama liggéey côté Medcef. ma dem fa benn travaux di liggéey jënd crédit cent franc si benn boutique pël ay guinéen lañ ko ba ma fa jëndee crédit ma dem ñibbi bu ma ñibbee nag man bàyyiwuma ci xel sax ma toog ba ay guddi am benn étiquette bi ma envoyé sama statut ma ma envoyé ko ne ko sekki mu envoyé ma xaalis bu bare bari ay takku xaalis yoo xam ne. ay photo xaalis ay photo xaalis yoo xam ne bu téye na ko moom si boppam loo xam ne war na mat ay cinq millions. na ma léegi dama bëgg ñu def yow benn guddi après que nga jël après ma demandé ko ne ko yow foo jëlee sama numéro. après mu ne ma non c'est que dama laa nopp affaire yooyu di wax ay wax yoo xam la nopp. mooy yooyu di wax ay wax yoo xam ni ma bloqué ko nag mais après dama dama compte ne kii fan la war a jëlee sama numéro parce que xaw ma woon kan la ma installé waat beneen WhatsApp envoyé ko woon sànq mu ne ma non lu tax nga ma man dama la nopp affaire yooyu noonu xam nga. mais mais bi nga demee ci moom lan nga ko woon ba mu xoolee na daf la nopp. non parce que man kii wu ma parce que man moom sax parce que dama jënd crédit rek dem Euh, ci guddi gi ay minuit la jot message am xaw ma woon kan la après ma desalawaat beneen whatsapp après ci la prévenu ñëw ne ko léegi da may envoyé sa photo ma xam la nga envoyé ban milieu nga dëkk mu commencé di def ay vidéo taatam di ma envoyé ay kii ma envoyé ci whatsapp waaw muy ma la envoyé ak yeneen vidéo yoo xam ne tamit intervenir naa sax même Adamo mais moom nee na du wax si wàllum góor jigéen quoi. Ah, ko ci woo naa ko si parce que appel bàyyi nii def naa ko appel. mën nii. envoyé woon naa ko sax vidéo yeeg yooyu yëpp mais moom nee na du si du wax si wàllum góor jigéen parce que ma ko envoyé vidéo euh, après moom dañuy du si wax moom du wax si wàllum góor jigéen quoi ma ne ko intéressé wu si mun man noonu intéressé wu ma si parce que Adama moo nekk nii maa ngi koy woo affaire bi mu ngi am euh, le 13 mars le 13 mars laa envoyé kii yëpp Adama Boss laa envoyé kii bi yëpp mais mhm. moom nee du wax si wàllum wàllum wàllum góor yéen quoi mhm. loolu la ma wax ma ni ko kon garaawul après si la intervenir nag dem dem gendarmerie si lendemain bi euh, gars yi commandant bi si boppam moo dem jëli jëli waa ji parce que. d'accord nan nga inter nan ba nga demee gendarmerie lan nga leen wax. li ma leen wax mooy dama leen wan photo yi wan leen vidéo yi nga xam ne gars yi mu ngi ma koy mu ngi envoyé ak audio commandant bi si boppam ne moom lii mënu koo gëm quoi parce que moom même bu mu nekkee biir sali ba léegi dina dégg góor jigéen mais musul musul am ay preuve comme nii preuve yoo xam ne euh, jot jot na ko comme nii li ma ko jox ci ay preuve si la jug taal otoom ñu dem jëli ko ba si bitigam parce que bañ dem day jaay boutique day jaay boutique alors lan mooy yan mooy boutique euh, boutique euh, commerce commerce yoo xam ne yu mag la ay ay grossiste la ñuy jaay guinéen yu bari lan parce que ah, nationalité guinéen la yore nationalité guinéen mais dañu am carte d'identité sénégal ensuite dañu am carte d'identité sénégalais am nationalité sénégalais mhm. mais ay guinéen lañ ay guinéen lañ après si lañ dem parce que avant ñuy dem may dem si gendarmerie sax dem naa fa intervenir gars yi poñe man na ma kii imam la affaire yooyu noonu kii def foofu noonu koñ ba ñoom ñëpp poñe di ma kii. parce que boobu noonu dama am vidéo yi ma dem wan leen ko ne leen kii góor jigéen la. waa koñ bi waa koñ bi ñu ni ma loolu amul parce que kii day moo ñuy waar moo ñuy tegal ay xam nga moo ñuy waar mooy mooy parfois sax moo ñuy jiite affaire yooyu kon loolu mënut a am. Mhm. ñun mañ leen kon graw léegi comme te ñu poñe ma fa xam nga xaw maa ngal tuuti mhm. manta tamit ma jugee fa si lendemain ma dem gendarmerie déclaré ko ñoom ñu jëli ko seen bopp. bañ ko jëlee ñoom tamit euh, gendarmerie bi moom def na liggéeyam bu baax a baax parce que ñoom rafetlu wuñ loolu premièrement ñoom ñoom seexlu nañ koo sax laal parce que kuy dem bay sol gant di jàpp góor jigéen pour mën koo téye sax kon ñoom seexlu nañ ko laal xaw ma nag après si kaw ñoom lan mooy seen travaux mais euh, li may wax mooy gendarmerie Saly moom def nañ seen liggéey carrément alors que di topp di topp suivi enquête parce que après si la am na téléphone mu ni amul téléphone ñu dem euh, ba localiser téléphone fu mu ne ñu dem jëli ko bañ ko jëlee gis nañ ni ab vidéo yoo xam ne ay taalibeek ay yu yu bëree bëri yoo xam ne mu ngi doon tëddee. Ah, ay taalibe yu góor wala yu ndaw jàng mooy. day jàngale waale wala. moom jàngalewul mais comme boo yoree bitig nii taalibe yi ndaw yi ñëw di yolwaan affaire yooyu taalibe yi dañ fay bari mu leen sarax ak yenn si ay jabaru jaamur yoo xam ne tamit yor na seen vidéo foofu ñoo xam ne gendarmerie tamit retrouver na ko si biir si biir information yi fan parce que toog ñoom ba ñu ànd ba ñu demee jëli téléphone bi dama toog ñoom ñu génneel li si téléphone bi waaw eh, mu jotee téléphone bi sax mu ngi doon commencé di supprimer di wàññi yenn message ñu këf téléphone bi si moom après si lañ gisee ni ay jabaru jaamur rek yoo xam ne yu bare bari ñu ndax ñooñu ay jabaru jàmbur lañu. waaw parce que parce que ñooñu boo doon xoolee da ngay xam ni ñii am nañ jëkkër ay borom kër. nit am na jëkkër dañ ko bind fenn wala. non du question bind mais xam ñuy doxalee at seen wax ba ba ñu tegee audio ñuy waxee rek. da ngay xam ne audio yëpp yaa ngi foofu. maa ngi fa parce que lan lañ doon wax ci wax ni maanaam bu fekkee ni ay guddi bu ñu woo ay affaire yooyu ñoom mën nañu def seen kii lentement ki amul jëkkër xam ne du def du ni maanaam ay guddi bu ma woo ay kii bu ma woo ak yooyu noonu parce que am jëkkër rek mooy wax loolu naan guddi bu ma woo ak yooyu ko alors même ay vidéo góor yoo xam ne tamit si koñ ba si même koñ boobu noonu mu ngi leen di def ay vidéo di leen di leen def na ko suñu noonu si ay góor. ay góor mu ngi ci vidéo yi mu ngi ci téléphone waa ji. téléphone waa mu ngi ci téléphone waa léegi nag après si lañ defee si laa xëyee nag ma ñibbi si laa ñibbee ñoom ñu tëj ko foofu ba ma xëyee dem liggéey waat ma gis ñetti nit ñoo xam ne tamit dar dar nañ ma jeeg saa rek woo mu der ma geesu rek ñu dóor ma. ñoo xam la woowee wala. non woowuñu sama tur parce que xaw ma dañoo am sama photo xaw ma. mais ñooñu xàmmee leen ñoo xam ni kon ay. mbër nationalité lañ lan lañ. ñooñu ay sénégalais lañ ñooñu ay sénégalais lañ mais am na benn guinéen bu si bokk ñoom tamit. mais dóor nañ ma dóor dóor yu métti après ma jug a ma affaire yooyu noonu. dóor ma ne ma pareeguñ ci yow nag parce que fii ak quelques jours bu fekkee nañoo defeere waa ji rek après yow dañ lay rey fii ak quelques jours. dañ la menacé waaw mu menacé mais taxul ma faale leen taxul ma lijjanti leen tamit. parce que menace de mort yi naa leen ko wax naa leen ko parce que tey jii fa laa jógee tey jii fa ñu ne ma léegi da dem def certificat médical mais ba léegi tamit demoo parce que dama am problème boobu quoi parce que kaj yi ñoom ma kaj yi. même démb démb génn ma toute la journée si si laay bu fekkee ni nag euh, léegi kon góor góor góor ñi nga xam ne ñooy xeex ñooy xeex wàllum góor jigéen ñoom la ñuy dóor kon moom léegi comprendre ma Sénégal quoi alors que instant bi moo amuma sécurité parce que ñu bare bari bu may génn sax damay àndat lu mu bon bon dix personnes dix personnes pour ñu génn affaire yooyu amatuma benn sécurité parce que il me menace tous les jours alors que ñu ngi may woo même appel yoo xam ni du affiche sax inconnu du affiche sax inconnu des appels. dina génne bu ñu woowee dina afficher numéro mais après du afficher inconnu. dinañ ma woo appel duñ ma woo appel damay jël mais doo gis sax numéro bi après ñu wax ma seen wax te bu dañee doo gis sax inconnu ñu ci. man affaire googu tamit xaw na ma jaaxal seen seen parce que ñoom tamit bàyyiwuñu ma wax dañu ma léegi da def def euh, euh, certificat médical nga andil ñu ko tout simplement. loolu rek lañ ma wax après ma dem ñibbi. at tey bu ma demee tamit gis ko fa moo ma jaax parce que démb ma woowee gendarmerie ma defeere nañ ko mais tey suba ma demee moom fekk naa ko fa waaw loolu tamit mu nekkaat beneen wax boo xam ne parce que ñoom ñu may waxtaan ne ma moytul moytul ñii parce que ñii seeni affaire a luus quoi déedéet moytu leen léegi man nag bu fekkee ni léegi isa man man parce que ñun tamit du ma doxee noonu bu fekkee ni ñoom tamit dañ may jàpp di ma dóor bu ma ànd nii tamit bu ma leen gisee tamit euh, bu ma yoree li ma leen jam tamit dama leen di jam parce que ñoom ñoo may bu fekkee ni aw ma sax euh, aw ma droit euh, ministre de l'intérieur séyoolu ma sax ma am arme blanche affaire yooyu même mais bu may dox konte ñoom dañ may attaque ku ma si jekk moom dama lay jam loolu moom je le dis moom mhm. alors lan ngay mujjee wax euh, li may mujjee wax mooy que alors que bu fekkee ni nag àdduna bi dem na ba <coughs> koo xam ne dañ koy accuser ku ñuy ku koo xam ne jigéen la muy accusé am sécurité bu toll ni moom euh, bu toll ni moom ñu koy sécuriser ba nga xam ne benn population du ko gis ku mel ni Adji Sarr a sécuriser sax nu mu amee eh, bépp ci wetam non du question sécurité boobu sax mais parce que man tamit ay menaces parce que mën naa dox guddi fi gis na ni mu wéetee mm-hmm. mën naa dox guddi ñu dóor ma weñ wala parce que am naa liberté war naa am liberté dem xëy gisoo ma tey liggéey dem ma fenn mm-hmm. depuis depuis boobu léegi génn ma parce que mën naa génn ñu kar ma wala leneen ak leneen mhm. alors que comme moom ni mu amee sécurité pourquoi pas xam nga ñi xam ne ñooy xeex wàllum góor jigéen parce que même même même moom sax moom avant avant avant waaj ñu koy yóbbu mhm. menacé na ma ci yenn yenn yenn féticheur mhm. ñoo xam ni maanaam il se travaille avec ñoom ñoom ñooy liggéey yenn féticheur xam nga parce que daf ko wax vocal après ñoom euh, kiiwu gendarmerie tamit dañ koo dindi yooyu tuuti yëpp après dañ koo dindi quoi parce que da même ay ñoom xam ay kunkante xam nga ay ñooñu noonu ay genre féticheurs yooyu yu bëree yoo xam ni tudd nañ leen. ci vocal yi ci ana vocal yi. après ñoom nag bañ may dóor démb lépp dañ ko dindi parce que même photo yi nag laa yoroon parce que dama ko am ku ma ko envoyé woon moo tax mu mu des si lépp lenn benn kii bi laa laa yor mooy fi ma njëkk a envoyé whatsapp moom. Mhm. laa yor mu moo nekk nii moo nekk nii parce que daf ma envoyé lii. envoyé ma étiquette bi ma ko si kii mu envoyé ma saawa ko. moom da envoyé gelam ay mbir. waaw kuy envoyé man maa ko saaga. Ah, man maa ko saaga après mu envoyé ma takku xaalis yu bari yi gis nga ah. takku yu bari yi. tamit si lañ ñii ñëpp si lañ. Ah, photo bi tamit ñii ñëpp si Guinée pëlu Guinée lañ bokk quoi ñii ñëpp si lañ bokk. Mhm. léegi euh, bëggoon naa la tam fu nga ay ay précision mhm. euh, nga baar ma ci laaj bi mhm. ndax am amul yéen ñaar lu ngeen seqoon nga mere ko daal dina xaar ma taqal ko wala yooyu tamit non parce man kooku mosuma ko xam mosuma ko xam c'est la première fois xaw ma woon sax turam d'ailleurs que ba ñuy dem gendarmerie sax man xaw ma turam parce que moom whatsapp am li mu ci bind baaba la ci bind nekkati moom Ousmane la tudd parce que man xaw ma ko woon sax man je le connais pas parce que ki am preuve maanaam dem ba gars yi déglu audio bi gendarmerie déglu audio bi xam li may wax lépp ba ma wan leen photo yi nga xam ne sexe yeeg yooyu noonu yëpp mu wan ma amul sama photo amul sama dara ñu xëy nag euh, ma yóbbu ko gendarmerie même magam ji nekk foofu ba ma ko xaw wanee tamit dañu ma kii du moom affaire yooyu noonu ñoom ñëpp si secte yi lañ bokk ay bitig yu rëy lañ yor nag ay yooyu parce que mënu ma mënu ma concevoir benn boutique boo xam ni day nekk sur le plat di fay deux cent mille chaque chaque jour chaque chaque mois di joxe dépense lu mu bon bon vingt cinq mille alors que boutique boobu du mus a wàcc alors que loolu tamit xam nga te Guinéen yi pël Guinéen yi gis ne dañu fi bare jamono ji ba pare di woote ay diine ñoom ñëpp en tout cas ah man je ne sais pas parce que ñi ñi ñi ci ñi ñu fekk si portable am ci Guinéen dafa bari ci ay. ay bitig yu bari bari non du Guinéen yëpp man je je pas Guinéen yëpp la mais bari na fii nii Guinéen yoo xam ni tamit fekk nañ leen ci portable am. yoo xam ni ñoom duñ national duñ nationalité sénégalais ay Guinéen lañ mais dañu am carte d'identité sénégalais. ñu leen di sant di leen gërëm yéen ñu doon seetaan émission seen ka dégg ngeen ni mu ko waxee na ci itam ay leeral waaye du ñu ci yem ñu ko toppaat ba xam yëf yi exactement naka la tëddee ñu sant leen bu baax gërëm leen may gërëm bu baax a du si ci caméra bi. Ah, bi ñu paree suñu interview ak waa ji dem nañu ci gendarmerie bu Mbour fekk nañ fa ñi nga xam ne ñooy takk der yi wax nañu nag information boobu lu wér la ndax suñu kanam la ñu defeere waa jooju ngir rek yóbbu ko ci tribunal ba mu jàkkaarloo procureur ngir mu jël ay ci moom ah, bi nga xam ne it def nañu ko adduna ci li nga xam ne moom la ñu koy tuumaal waaye it indice yi nga xam ne mu ngi topp ci kawam ndax photo vidéo ak audio ya nga xam ne jëlee nañ ko ci téléphone Ousseynou te loole yëpp moom moo ko doon envoyé.